ak euh, délégation fédération bu tàkku mu fekk fii euh, maanaam euh, lépp li nga xam ne mooy kuréel bu yëngu ci wàllu sport ak wàllu administratif sécurité kaaraange ci Thiès euh, ñuy door tamit di leen gërëm ci loolu parce que wane na nag Thiès taxaw na tey pour maanaam relai bi maanaam pour ñu gën a dëgëral maanaam choix bi ñu def pour fii mais surtout organisation bi nekk organisation bi mucc ayib jaar yoon tey ñu duggee nag si CRD bi xool nañu li ñu tudd aussi aspect yëpp li nga xam ne moo jëm si wàllu li nga xam ne moo gën a am euh, li ñu tabax ak li nga xam ne mooy stade ndax defar bi ñu ko defar méngoo na ak li nga xam ne mooy charte CAF maanaam li ñuy wax euh, pour ñu mën ko homologué maanaam CAF bu ñu nangul ñu mu ko utiliser comme stade boo xam ne mën na dalal match international te ci liñ si jàngat xayma ko gis nañ ne def nañ say jéego yu bare nga xam ne li ñi wara a def léegi lu néew la donc xel dal na ci côté boobu ñaareel bi moo doon il ñu xool naka la ñuy fexe euh, Thiès gi doon na organiser édition ak euh, tolluwaay bi naka la ñuy def ba organisation ba ñu am benn jafe-jafe lépp mët yëpp lépp yemba mais euh, am nañu yaakaar ne ci côté boobu aussi comité fédération mais aussi comité d'organisation bi nga xam ne

mu nekk stade boo xam ne ci lim ñu ko mën fekkee du dépassé euh, huit mille cinq cent donc loolu jafe-jafe bu rëy la moo tax li ñu xalaata def mooy euh, ubbi fële ca euh, promenade des Thiessois benn fan zone boo xam ne dañ fay def écran géant nga xam ne ñëpp ñi nga xam ne du ñu mën a egsi ci stade bi ñu mën a dem foofu Euh, partager moment yi yoo xam ne yu am solo la pour Thiès dund match bi foofu ak euh, suñu partenaires yi ak euh, yeneen doom yi xëj na sax dina am ñoo xam ne dinañu bàyyeekoo Dakar wala feneen wala yeneen ñu mun dugg see stade bi ñu mun parce que defe naa loolu la ñaan nit yi ñu comprendre que mënul jël lu weesu loolu parce que bëgguñu jël benn décision boo xam ne léegi dina bakkenu nit yi wala seen sante mën na ci menacé surtout que bu amee loolu mooy xëj na stade bi dañ ko jël abadan donc loolu ñaan ñaanal ko yàlla